gée ñëpp su vote amee ku si nekk yaa ngi yore sa carte di voté tey ñëw nañ fi te lu ma si gën a mooy le jour ji rek le ampleur bi di am su weesoo ñii ñëpp dañ leen di fàtte parce que dama ko suivre dama dund accident mooy accident journaliste yi amoon euh, Kédougou cortège Leral TV cortège Macky Sall bi jour boobu le président a fait un beau ñëw na fekk ma ma évacué ak euh, avion mais depuis lors jëluñu charge ñi décédé ñu ngi noonu waaw ay xale yi ndaw tëdd. depuis loolu yow ci loolu. depuis loolu ma maa ngi sant naa yàlla parce que xëy na yàlla xol lay fay tey ku ñëw dem def ay circoncision def ay tabax ay ay daara def yeneen ak yeneen dama delloo lépp si yàlla mais dama xam ne ñoom il faut ñu ñuy bàyyi xel. nga jàpp itam dañ la seetaan. ma dañ seetaan te ñii tamit xam naa ne dañ leen di seetaan ñii nii tëdd nii tey loolu moom ma métti loolu moom moo mujjee parce que dañ leen di seetaan parce que bu buñ fi jugee ampleur bi mu am rek dinañ ñëw teew ñu demee fàtte nañ leen te doomu aadama dafa foor yàlla daf ko daf ko sàkk ba pare aj ko yéegal ko ci kaw mais si li ñuy dund nii man tey dama ñëwoon ànd ak waa waa Terre Yar indil leen ndox parce que bu ma ko yëgee ma ne mënatuma dem foog ma la tourné ñëw parce que ba mu ñëwee chef de service bi mu naan moom xam na ma parce que yàgg naa ko defal geste social si benn xale boo xam ne finalement dafa décédé woon tey ma ñëw ànd ak ñoom si naqar bi ànd ak ñoom si dëy bi mu métti lool. d'accord léegi ba nga gisee koor yi ñu leen di compter ñi nga xam ne seen bakkan mi ngi. léegi ba nga gisee koor yi ñu leen di compter ñi nga xam ne seen bakkan mi ngi ci diggante dund ak dee Amina en tant que jigéen sentiment bi. non en tant que jigéen. sant naa ne métti na sama xel dem na si sama accident dund nañ dund yu parce que plus de cinquante quatre c' est trop dix rek bëri na waxuma la nag cinquante quatre ñeent permis yi dañ koy jox n'importe kii maa ngi koy wax demboo kii ma àndal nii Amadou moom moo ñu dawal indi ñu c'est un fait démb dama taxaw kaw la ku si nekk naan ko Amadou ah, utal ma permis utal ma permis sa liggéey rafet na mais dama gis Dakar da ngay joxe sa cent mille mu utal la permis waaw doo def sax conduite doo def dara tey ñu koy def duñ leen sensibiliser chauffeur yi tamit dañ leen a bàyyi si lu leen neex dañ leen a bàyyi parce que tey ñii ñi fi tëdd nii tey am nañ fi ay yaay ne responsabilité ñoo xam ne dañoo daane woon doole pour yóbbu dem jox seen njaboot tey ñu ñëw tëdd fii gis naa ci koo xam ne dama dugg sànq mu ne ma dama wuti woon lu ma fajee sama doom tey ma accidenté nii loolu dafa dafa métti tey loolu dafa trop vraiment c'est dur vraiment